ñun ba ñu commencé ba léegi jotaguñ dara président tey la commande commune bi doog a ñëw tey tey mooy masque yi commune bee ko commande tey li ma commencé def depuis 7 7 mars ba tey sama poste bopp laa koy def à part li ma def ci biir marchés muy bésu set setal donc ñun xaaruñu lu ñuy jël di ko yóbbu suñu kër ci ceeb ak bërigo 10 litres dëwlin liñ bëgg mooy ñi ko askan président bu wax ñu jox leen ko ñun nekkatuñu maire sax ñun agent de l'État lañ article 117 du code des collectivités territoriales dafa wax ne am na fu mbir di toll maire préfet ci autorité préfet lay dox préfet dafa ñëw nee terme de référence ministre bi nee gouvernement bi nee ni nii la ko bëgg yow maire wotel nga taxawal sa comité demal ci quartier yi nga samp comité yi suñu paré nañu def liggéey bi indi ko ci yow comité bi nga jité ñu liggéey buñu paré nga dé nga jébal ñu ko te toog kanam problème bi loolu la ñuy def ci biir semaine bi suñu ko deful fayir nañ suñu mission territoriale dafa wax ne am na fu mbir di toll maire préfet ci autorité préfet lay dox préfet dafa ñëw nee ñu terme de référence ministre bi nee na gouvernement bi nee na nii la ko bëgg a tax yow maire wooteel nga taxawal sa comité demal ci quartier yi nga samp comité yi suñu paree nañu def liggéey bi indi ko ci yow comité bi nga jiitee ñu liggéey bu ñu paree nga de nga jébal ñu ko te toog kanam problème bi loolu la ñuy def ci biir semaine bi suñu ko deful fayir nañ suñu mission